maa ngi leen di gërëm di sant bu baax ginnaaw bi ñu jullee ci yonent bi santit suñuy wayjur maa ngi am mbégte waaye laata ñuy dugg sax comme ni ñu ko defee en français ñu ngi ñaan suñu boroom teeru ci aljana yu gën a kawe yi maître Alioune Badara Cissé Sénégal ñàkk ku dëgg Sénégal ñàkk jàmbaar Sénégal ñàkk nit koo xam ne jub ak njubal dong la doon doxal valeur yooyu tumranke ci réew mi moo tax tey ji ay sénégalais yu jàpp ne li war a defar réew mi dafa war a jaar ci seen loxo ku ci nekk ci ñoom joxante loxo laata ñuy ubbi ndaje mi nii ak taskatu xibaar yi liggéey nañu ci lu toll waxtu ay kilifa parti ay kilifa mouvement ku ci nekk wan nañu leen ko ay kilifa yoo xam ne seenuk liggéey ci Sénégal kenn natablewu ko ci fànn wu nekk ñooñu ñépp tey ji boole seen doole boole seen xalaat boole seen yéene ne lenn dong lañu bëgg xàccandoo dóorandoo ci ab coalition bu mag bu ñu tuddee la grande coalition gëm sa bopp toll nañu ci fukki parti politique wan nañu leen leen toll nañu ci fukki mouvement wan nañu leen leen toll nañu ci fukki personnalité di ay nit ñoo xam ne takk nañu ay ndombat tànk ci réew mi ñoom it wan nañu leen ñu ngi leen di sant ku nekk ci ñoom ci kóolute gi nga xam ne am nañu ko ci suma jëmm ji suma jëmm ju xeebu ji waaye jël ma def ma président bi nar jiite la grande coalition gëm sa maa ngi leen di sant bu baax président yi nga xam ne ñoom ñoo ma fal ci daraja jooju may wax rek ne lii juddu tey di grande coalition gëm sa bopp ñaax la nde ñu ngi ci woon waaye gën ngeen ñoo làbbali ça veut dire dootuñu tëddati dootuñu nelawati benn yéene dong la ñu am mooy fexe ba nit ñi bu ñu xiifee mun a lekk bu ñu feebaree faju waaye képp ku ñaq sa ñaq mun laa jariñ parce loolu mooy li ñu gëm te ñoom ñii it ci waxtaan yi gën nañu ko firnde ma ne leen dinaa sol suma dàll dem ci képp koo xam ne jàpp nañu ne bu ñu waxtaanee ak moom Sénégal dana am beneen xar kanam bu bees dëkkuwaay gën a ñoŋ loolu Abdou Karim Sakho mi nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu dëkkuwaay environnement ak li ko wër mu ngi ciy liggéey am na sax lu mu ci génneen bi mais danañu ko gën a liggéeyaat ba gën ko tasaare nga xam ne ci la grande coalition gëm sa bopp ay boroom xam-xam yu biir yu def seeni preuve ci stade bu nekk ci niveau bu nekk ci Sénégal ñoom ñoo composé gëm sa bopp kenn mënu du wax nag jamono ji te waxuloo mbugal gi ñuy mbugal askan wi waxoon na ne l'opposition dina leen maasale réduire jusqu'à la plus simple expression loolu la waxoon waaye daf ñëw diggoon yoonu yokkute mu ngi ko doog tàmbali nag parce que nen sax yokku na ah mu ngi doog a tàmbali yoonu yokkute yoonu yokkute Sénégal jàpp leen ne mu ngi doog a tàmbali parce que tey jii lépp lu nit soxla ci Sénégal yokku na effectivement loolu mooy yoonu yàqu te conférence de leaders ci ndaje mi ñu am tey ba taxawal la grande coalition gëm sa bopp jox nañu ma feu vert ngir ñu waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi te war a dugal seen loxo ci lu saafara tawatu askan wi may fàttali rek ne tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu langue politik bi Sénégal mu ngi leen di bàyyi xel yéen ñi féeteeg langue politik bi senegal mu ngi leen di déglu parce que li ñu bëgg mooy ñii nga xam ne ñoo fi nekk di toskareloo réew mi ñi nga xam ne ñoo fi nekk di yàq senegal ñi nga xam ne ñoo fi nekk di indil ay jafe-jafe Sénégal ñooñu ñu mën a seet nu ñu def ba daal di leen fi jële loolu conférence des leaders wax nañu ko waaye ma leen di soññ rek yéen ñiy def politique ci Sénégal nit ñi dañoo sonn ci waxu politique nit ñi dañoo bëgg ngeen leen di wax jafe-jafe yi ñuy dund mooy li ma fi lim léegi inondation yi dund bi lekk gi lépp ñu ñu seeral te kenn ku nekk ci yéen nekk ca la mu nekk waaye yitte woowul jafe-jafe yi askan wi am kon ma leen di interpeller encore une fois yéen ñi nekk ci classe politique bi yëpp ngeen bàyyi xel askan wi parce que bu ñu leen falee yàlla ak ñoom a tax kon nañu leen bàyyi xel bu baax di wax rekk ne conférence des leaders maa ngi leen di sant bi ngeen ma joxe dogal bi ngeen ma soññee ne ma mën naa dem waxtaani ak coalition bi ñuy taxawal ci opposition bu senegal yàlla dafa def tey ji kenn du wax ci mbirum politik ci senegal génn ci gëm sa bopp dañuy nangu ndogal rek waaye ndogal woowu ku mel ni Khalifa Sall nangu na ko parce que tàllal nañu loxo wax naa ko conférence des leaders yónnee nañ ñu charte bi danañu ko examiner waaye ñoom conférence des leaders jox nañu ma quitus ne ma nañu dem dugg ci biir coalition boobu ñenn ñi jàppee coalition des grands kon cinquième grand am na. remercier ñëpp nag di rafetlu taxawaay bi waaye rek may interpeller les acteurs de l'opposition Sénégal tey jii ñu ngi leen di déglu Sénégal ñu ngi leen di bàyyi xel li ñu bëgg moo yéen ñi nekk ci opposition bi ñun ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu dugg ci biir opposition bi ñun ñi ñu boole suñu doole doon benn l'unité de l'opposition est devenue une demande sociale parce que nag bu ñu waxantee dëgg bu desoon ci man ak Macky Sall donc bu ngemboo ma ngemb manit wàcc jàkkaarloog moom waaye yeewu na yeewu goo xam ne dafa am coalition bu mu àndal ngeen bëgg ko ngeen bañ ko coalition bi ça fait quand même neuf ans wala dix ans ñu àndandoo nekk benn kon coalition coalition moo koy daaneel coalition coalition moo koy déjjati te ñun ñii ci grande coalition gëm sa bopp danañu ànd ak opposition bi tàllal leen loxo liggéeyandoo ak ñoom ci lii nga xam ne sumb nañu ko ba di ko dox ñu ànd ci ak ñoom yéene bi mooy bu ñu yeggee ci élection yi ñuy def incha allah élection locale yi muy janvier 22 janvier 2022 Macky Sall ak njabootam xam ne Sénégal suur nañu leen Macky sàll ak njabootam xam ne ñi nekk ci gox goxaan yi lott nañu sonn nañu Macky sàll xam ne ñi nekk ci communes yi dootuñu ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar Gueye l'original heureusement bi nga ko xamee ba daw Parcelles Assainies jëm si ci grande coalition gëm sa bopp kon ñeneen ñi nga xam ne ñoom it xatal nañu leen fa ñu nekk ñu ngi leen di tàllal loxo daw ca ba ngay ami tànk kon ñëw leen ñu àndandoo ngir lii ñu fiy suuxat ci lu bon ñu déjjati ko Gueye l'original ku ko déglu nga déglu son discours xam ne nit la koo xam ne ku engagé wu la ku bëgg li muy def la par rapport ak réewam xëy na nag nit dina def choix mais di nga def choix ba ci biir nga gis ne du choix bi gën nga delluwaat ci say tànk kon loolu la def ñu ngi ko ciy sant di wax rek waa Sénégal ne leen incha allah yéene bi ñu am mooy fexe liggéey Sénégal àndandoo fexe ak ñii ñu àndal ba makki Sall ñu daal di koy dànn ci janvier 2022 ba Macky Sall dootul xalaat dem élection législative ba Macky Sall 2023 bi nga 2024 bi nga xam ne nee na du ci wax waaw wala du ci wax déet danañ ko contraindre mu xam ne déet dong moo mën a nekk allahuma salli ala sayyidina muhammad jërëjëf